ñoo xam ne lu nu am jébbal sëriñ bi man dañee naa leen ñoo xam ne lu nu xam wax ko sëriñ bi xanaa yow ñee nga leen ñoo xam ne lu ñu mën defal sëriñ bi kon man ak yow ñee nañ leen ñoo xam ni seenu gëm weesuwut sëriñ bi ñun ñee nañ leen ñoo xam ne seenu bëgg weesuwut sëriñ bi ñee ñee nañ leen ñoo xam ni seenu yëngatu seenu dal yépp sëriñ bee ñoo ñooy bayfaal yu dëggal ñëpp ñee nañ leen moo tax mu Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké wax ne bayfaal bu dëggal moo ma gënal sama jëmm